sëriñ Mbacke Sidi Diouf sëriñ Mbacke Sidi Diouf mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1930 ci dëkk boobu nag waajuram goroon di Daaru Diouf nekk nag ci suuf si nag di meewaan ci commune nag bu Daaru Xuddoos Mboro ci département nag bu Tiwaawoon nag ci région nag bu Thiès ci dëkk boobu nag la sëriñ Mbacke Sidi Diouf nag feeñee jamono ci atum 1930 muy doomu soxna Faati Samb ak sëriñ Mor Diouf Jati moom bi mu feeñee jamono waajuram nag sëriñ Mor Diouf Jati sëriñam ba sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag la ko tuddee ñu koy wooyee sëriñ Mbacke Sidi Diouf sëriñ Mbacke Sidi Diouf nag di turandoo sëriñ Touba Seexul Xadim am na nag ñu bokkal nag soxna Faati Samb ak sëriñ Mor Diouf Jati mi ñu mën cee ràññee nag soxna Musli Diouf bintu soxna Faati Samb bintu sëriñ Mor Diouf Jati ak moom sëriñ Mbacke Sidi Diouf ibnu soxna Faati Samb ibnu sëriñ Mor Diouf Jati kenn nag la bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen muy soxna Muslimatu Diouf soxna Muslimatu Diouf mii nag bi matee dem kër sëriñ Ousseynou Guèye nag ci dëkk bii nag di Daaru Guèye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ousseynou Guèye nag am nañ ak njaboota Cheikh Daaru Guèye sëriñ Ali Guèye sëriñ Abdul Karim Guèye sëriñ Góora Guèye ak sëriñ Malick Guèye njaboot gii nag ñooy jarbaati sëriñ Mbàkke Sidi Diouf sëriñ Mbàkke Sidi Diouf nag bi matee daal alxuraanul karim waajuróom nag sëriñ Moor Diouf Jati moo ko jëlee nag ci dëkk bii mu feeñee jamono di Daaru Diouf yóbbu ko nag ci dëkk bu ñuy wax nag Ngéejaan jox ko fa nag ku ñu wax sëriñ Moodu Ndooy ci loxoy sëriñ Moodu Ndooy nag la dalee alxuraanul karim ñetti atitim nag la def nag ci loxoy sëriñ Moodu Ndooy waajuróom nag sëriñ Moor Diouf Jati nag génn àdduna bi waajuróom sëriñ Moor Diouf Jati nag génnee àdduna la ñëwaat nag daaru juufa fekk si nag bis yu mujj nag yu waajuram ginnaaw bi nag la ko magam jël sëriñ daaru Saynabu juufa mi njëkk wuutu nag sëriñ Mor Juuf Jati jox ko nag ku ñuy wax sëriñ Basiiru Cuun ci dëkk boobu nag di daaru juufa mu wéy nag nekk nag ci loxoy sëriñ Basiiru Cuun nag di jàng alxuraanul karima ginnaaw bi nag sëriñ Basiiru Cuun nag jógee na daaru juufa dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag sanc cuun yóbbaale woon nag doomu sëriñ Mor Juuf Jati bi di sëriñ Mbàkke Siidi ci dëkk boobu nag di sanc cuun nag nekkoon na faak nag sëriñ Basiiru Cuun ginnaaw bi nag la jóge nag ci dëkk boobu nag di sanc cuun dem nag ci baneen beneen dëkk bu ñuy wax nag xewar ci sëriñ Demba Tàkko mu wéel nag am njàngam nag ci dëkk bii nag di xewar ci sëriñ ba Tàkko ginnaaw bi nag la jóge nag ci loxoy sëriñ Demba Tàkko dem nag ci dëkk bii nag di Kàbbu Gay ci loxoy sëriñ Ibrahima Cissé bi mu nekkee Kàbbu Gay nag ci loxoy sëriñ Ibrahima Cissé la fa gisanteeg sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke booba itam nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag mi ngi foofu dëkk boobu nag di Kàbbu Gay Kàbbu Gay googu nag la mujjee jàngee ci loxoy sëriñ Ibrahima Cissé bi mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di Kàbbu Gay nag di wéel nag am njàngam ci loxoy nag sëriñ Ibrahima Ibrahima Cissé fa la binde nag ab kaamilam booba nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad nag mi ngi nag ci dëkk boobu nag di Kabou Gaye ginnaaw bu mu bindee kaamil bi nag ba noppi la ko fob nag jébbal ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke wax nañ ne bisub keroog nag bi mu fabee kaamil bi nag jébbal ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag dafa bégoon lool nag ci doomu sëriñ moor juuf jati bi di ko xamal ne kaamil bii nga ma yiddee sa waajur wa bég na ci Cheikhul Khadim bég na ci ngën ngi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam nag bég na ci suñ boroom itam nag bég na ci man mi nga ko jox itam nag bég naa ci dama bëgg nag nag ñu fasante nag ak kóllëre sama digganteeg yow bisub keroog sax sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke wax na keroog nag sëriñ Sidi Diouf di ko xamal ne nag dama lay teral nag ngir jëmmi alxuraanul karim tàngalal ko fa nag meew xelli ko nag ci loxol boppam yébbal ko nag sëriñ Mbacke Sidi mii daa di fasanteeg moom nag kóllëre nag gu yaatuwa yaatuwa yaatu kóllëre googu itam nag ñoom ñaar ñëpp sàmm nañ ko ba sëriñ Mbacke Sidi tudde woon na sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke doom Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam nag daana ko nemmiku nag lu bare bare bare bari moo xam kàbbu gay nag ba ci daaru nekk taxawal fa nag daaray alxuraanul karim nag di jàng nag ak di jàngale dëkk bii mu cosaanoo nag di daaru juufa rawatina nag tundu meewaan wi yëg na nag doomu sëriñ moor juuf jate bi nag mi ngi jàngale nag ci dëkk bi nag di kàbbu gay ñu bari nag tàmbali koo jox nag seeni doom di leen jàngal bi mu yoree daara nag ci dëkk boobu nag di kàbbu gay ñi nga xam ne nii nag jaar nañ nag ci ay loxo ñu mën cee ràññee nag sëriñ juufa sëriñ cheikh daaru géey sëriñ góorandooy sëriñ mbay wadd sëriñ wadd sëriñ ousmane géey sëriñ cheikh seen sëriñ daam seen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo dëkk boobu nag di kàbbu gay nag li leen yoroon mu wéy nekk nag kàbbu gay ba ci atum 1963 mu ñibbisiwaan nag ci dëkk bii nag mu feeñe jamono waajuram nag nekk fa di sëriñ Moor Juuf nag jati di daaru juufa xalifa waajuram bi nga xam ne nii nag moo fa nekkoon nag jamono jooju di sëriñ daaru Saynabu Juufa bi mu ñëwee nag mu dëkk ak moom waajuram jigéen wi nag di soxna Faati Sàmm sàkku itam nag mu jébbulu nag ci ginnaaw magam toppit nag ci ginnaaw magam di ko xoole nag sëriñ Moor Juuf nag jati soo delloo nag ci way yii ko sëriñ maam Ceerno Njaay nag way nekk nag sëriñ daara mag ñi wax nag lu bare bare bari ci dunduk sëriñ Mbàkke Siidi mii ay waajuram fi mu jaar nag ci wàllum njàng ni mu taxawoon ay magam digganteem ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke digganteem ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbàkke ay addiye nag yu mu doon jébbal nag njabootu ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Xadima lu bare bare bare bari daal la ñu sëriñ Maam Ceerno Njaay di sëriñ daara di xamal nag ci way yi mu defal nag doomu sëriñ Moor Juuf Jate bi nag ñu teewlu ko ku di jullit diglu ma tey ma xamle siirab ku baax ka marsiyaal ko bégle Cheikh Mbàkke Siidi juuf mu baax ma laay wax kuñ xam la penkook sowu mel na nim ndox kenn ci seexi sëñ bi kuñ naa seex mor juuf jatti moo ko meññ moo ko rëy muur yaay jaadi soxna faati sàmb mbër la liggéeyu ndey mooy añu doom lu wér la ci dëkk bu buñ naa daaru juuf la fenke ñu jël ko tudde seexi bamba mbàkke tamsas ci hijriya yemoog 1930 mooy atam ma feng na ba saa ngéejaan ca sëñ mut ndooy la njëkk jànge am na fa ñetti at mu soog faa mànge del si fa daaru juuf ca seex basiiru cuun di jàng kay bindam subaak ngoon ab mu dot faa laxasaaya dem xewar fa sëñ ba dem ba tàkku tey liggéey bu wér su daa ko yónni jox ko xaalis xaalisam lay jënd yet ko xaalisam doon xaadimam di tërbiyoo ka jàng bam gërëm ko bam xaw a mokkal alxuraan mu takku dem kàbbu gay ca kàng ma ibrahima siise ma yéeme isxawaa tafhima taqoo liggéey ak jàng bay ku mokkal bam ni ko siidi ndéem gënoo maa mokkal gënuma la mokkal mu door a bind cey jilewaay fam yegg duñ fa xand ba mu bindee kaamil ba noppi abdul ahad mu yéem ko bam ni ko yàlla ak yonenam bak bamba bég nañ ci kaamil bi ñoŋal yanam ba bég ba jëndal ko meew di far koy xelli naa ko am toftal ko leer yu jolli yëgle ni kum fonkoon la ñëw na kàbbu bis wut loo ko meew ak kafe ngir cofeel gu fees mu noppi si abdul ahad xelli ca naan fasante faak moom kullëreem kenn du ko daan keroog la koy soññ ci sàkku xam-xam ndax doomi soxna wërta réere xam-xam naa ko amaana soo ñibbee sa kilifa dëxal la ci dëru nga doon fab xalifa topp ëllëg te lëf jërul li le na ngeen baxil ëllëg mil yu toftal 963 la del si daaru juuf di foori joj ju fees la del mu topp kañ naa kilifaam sëñ daaru juuf bañ fa jógee daaru salaam lañ dal di wuuf mu doon ku ñëpp sopp di tab woyof yamale woon ñëpp amul pëlëg wolof bari siyaar sëriñ abdul ahad jébbal ko ay hëddiya njaayam maakasat yet na ko bis ginaar yu takku am ca yu dee ngirub coono sëriñ bi bég ca waman yu haajir fi sabilillahi la jàng moo sabilillahi génn gàddaay jëm ci yoonu yàlla faatu ca yoon wa am na yoolub yàlla seex fallu ne woon na sëriñ xabdu mu wër fu bàmba taaloon nuyu leen mujug di wër booba la ñëw daaru salaam siyaar leen ñëw na ca daaray mbàkke sii di xam leen taxaw fataal ba naa ko yaa ngi jàngale mu ne ko waaw mu ne ko bul ba jàngale ba mu ko mujjee siyaar mu ñaan nee la ko xool daan ni ko yërmandey boroom laa la deseel su ko musaa siyaar ba noppi day dem siyaari ñam bokkal sëriñ bi moo gëm doy na ca firnde leetarub seex abdul xaadir bu siiw ba ki yeyoo na sargal guddik dimanche diggiw tabaski mil yu teg 976 la laxas ñépp di fokk ci yàlla laa ilaha illa allahu arsalahul ilahu duniyaa bu doon kërug saxoo di yaale kon de njaboot ga kenn du leen ko jaale waaye la yóbbu ahmadul makki yoo bàmba wa cerno bàyyiwul kenn mu toog nit ñee ko jooy am malayam njanaaw yi ñeel ñépp a jooy laa si yamaa dongam yi nañ maase santaat yàlla bam ñu séddee gii gërëme kum tibbal nga suur bay sédde tañ farluwaat def ndigal yi moytu safaan yi waaju dëng doo ko laytoo seex muudu doom ji toog ci jal bi ngoy leen ci moom bi wér samp la lum wax jëf leen donn na baay ba doon ko te jikkoom ya moom la ràngoo lam ne woon na yitteem kuy wër ku gëm bamba te fonk mbindam ngoyal ci seex muudu ne wëccul àndam mafaatixul bisri demoo di buntam daaraam ji moom la ko duppe moo xam waaju fa jànge ku fa doomam jànge man cerno ñee naa leen ne bisrey sange yal na ko yàlla yépp barke soxna jaara wóllëre seex muudu di maam cerno ca sañ cuppari moo ko way na làqu luy njariñ fam toxaley wesaru seex muudoog wayu sëriñ sàmba kon lu wér la jël ko yow xam naa ci moom luñ dul biral ci mbooloo ci ndimbalul seex muudu mii ñu doyloo taxawlu naa yal na borom bañ naara uuf dollee bégal jàmbar ja mbàkke siidi juuf santati naa yàlla na dollee bégalaat yonentu baak saxaaba yaak kanot xulaat kookaa seex bàmbate moo di sangub sang yi yal nañu ne leen amina bi jaahi seyxina alxadim amina mu wéy nag jébbalu nag ci ron magam toppit nag ci ron magam di ko xoole nag waajuróom nag sëriñ moor juuf jati bani magam nag sancee nag ab dëkk tudde ko nag daaru salaam juufa daaru salaam juuf googu nag bi ko sëriñ daaru say na bu nag sancee daa fob nag rakkam ji nag di sëriñ mbàkke siidi yóbbu ko fa sëriñ mbàkke siidi nag wéy nag nekk nag ci dëkku magam boobu nag di salaam juufa mu nekki nag ku teel a soti waajuróom itam nag def ci moom nag ab dénkaane wax ne nag sëriñ mbàkke siidi mii nag bu màggee nag nañ ko nag ci la sëriñ Mbàkke Siidi nag doon sukkandiku di ci wéyal nag ak dundam waajuram nag soxna Faati Sàmb moo ko ko jébbal nag ginnaaw bu mu ñibbisi waatee nag daaru juufa soo delloo nag ci ndénkaane bi nga xam ne nii nag sëriñ Moor Juuf Jatti nag moo ko bindoon doomam te waxoon na nag bu doomam ñibbisee am njàng nag nañ ko ko jox ca ndénkaan ba nag sëriñ Moor Juuf Jatti mi ngi xamal doomam ji nag di sëriñ Mbàkke Siidi Juufa yow sëriñ Mouhamadou Juufa man sa baay nag Moor Juuf Jatti duniyaa nag mooy kërug liggéey ay sëg nag mooy kërug négante alaaxira nag mooy kërug fay jëf adduna ji nag ku fi nekk di def lu baax lu la tee nag dem nag ci ay sëkk adduna ji nag ku fi nekk di def lu bon lu la tee nag dem nag ci ay sëkk ku dem allaaxira def lu baax nag ñu ne ak payam mooy àjjanatullaahi ku dem allaaxira nag def lu bon ñu ne ak payam nag mooy dem sawara ku deful dara itam nag ak payam mooy dem sawara def lu baax nag ci lu bari ak defuk safaan nag ci lu néew sëriñ tubaa seexul xaddim na xamaloon na leen na nag tool la ñaari jëf yooyu nag dagan nag moo nekk nag ci seen diggante tool bu baax bii waa kër ngeen gi mbindeef salallaahu taala alayhi wa sallam nag ñoo ci nekk saa bu ñu xiifee nag ñëw nag ci dagan mii wut nag lu ñu lekk bu ñu lekkee ba pare nag dellu nag ci tool bu baax bii buñ fa nekkee nag ba war a wut soxna ñëwit nag ci dagan mii wut nag soxna dagan mii nag ku ci yàgg léegi nga dellu nag ci xaraam mii waa kër ngeen gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam buñ mësaa ñëw nag ci dagan mii ba seen aaja faju ñu delluwaat nag ci lu baax lii yaram wi nga xam ne nii nag day xaraam sawara siddiit yu dëgër nag te nangoo jaamu suñu boroom nag ñoo cay sax bopp bay am barke nopp yuy dégg ndigal nag moo cay sax yow Mouhamadou Diouf sa baay nag moo nag faw ci bàyyee loon nag ci la sax toppit nag ci ginnaaw ay magam mu nekk nag ci dëkk boobu ko magam dël nag di daaru salaam juufa yor fa nag daaray alxuraan ju maga maga maga mag yor mbooloo mu takkoo takkoo takku nag mu muy tarbiya ñi yaakaar sëriñ Mor Juuf jatti nag bàyyi ko xel magam itim nag sëriñ daaru Saynabu itim nag bàyyi ko xel daaray alxuraan jooju nag mu yoroon nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam juufa ba nëga ni nag ma ngay doxa doomam ji nga xam ne nii nag moo ko wuutu di turandoo sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke di sëriñ Moodu Juuf Nogay nag moo ko yor di ko dundal nag ba nëga ni juuf googu nag bi mu fi yoree ca daara ci ñi nga xam ne nii nag jaar nañ fa nag tej man leen caa ràññee sëriñ daaru Saynabu nag joxoon na ko doom ju ñuy wax nag sëriñ Mahmoudan Diouf sëriñ Cheikh Ndoye itam nag na fa sëriñ Góora Ndoye itam nag nekkoon na fa sëriñ Ndoye na fa sëriñ Ceerno Ndoye itam na fa sëriñ Góora Géey nag nekkoon na fa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moom sëriñ Mbàkke Sidi nag mu am ñoo xam ne nii ku leen masaa gis nag daa xam ne nag sëriñ Mbàkke Sidi nag sori wu nag sëriñ Basiiru Sàll sëriñ Moor Cuun sëriñ Moodu Xari Cuun sëriñ Cheikh Njaay ci dëkk bu ñuy wax nag àndal Fall ak ñeneen ak ñeneen bi mu matee jël soxna nag ñu boole kook nag soxna suñuy wax nag soxna nogay ndóoy mook soxna nogay ndóoy nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag maam Busa Juufa soxna moomi natu Juufa sëriñ Moodu Awa Balla Juufa soxna Faati Isa Juufa ak sëriñ Abdul Ahad Juufa yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna nogay Njaay mook soxna nogay Njaay tim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna maam Busa Juufa di ñaareelu soxna maam Busa am mën cee ràññee nag maam Ceernu Juufa soxna moomi natu Juufa di ñaareelu soxna moomeem ak ku ñuy wax sëriñ Moodu Juufa yoraatoon soxna suñuy wax nag soxna faati cuun mook soxna faati cuun nag benn bant lañ am muy kam faye woon nag sëriñ moustapha absa mbàkke moom sëriñ moodu awa balla mbàkke soxna yii nag la dëkkoo woon nag njaboot yi nag la ci am ngir xamale leen njaboot gi mu am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna moomi juufa bi mu matee dem kër sëriñ yuusufa cuun nag lañ ko jébbaloon ci daaru salaam juufa doom ji nag di soxna maam busa juufa bi mu matee dem kër sëriñ ousmane géey nag lañ ko jébbaloon ci dëkk bii nag di daaru géey mook sëriñ ousmane géey nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññe nag sëriñ njabootam geneen njabootam jëpp nag dañoo génn àdduna nag ci seen tuut tànk mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam juuf ci ginnaaw magam nag sëriñ daaru bu juuf di dundal nag ndonal waajuram nag sëriñ moor juuf jati nekkin nag ku bëgg nag njabootuk sëriñ tuubaa seexul xadiim gi rawatina nag sëriñ tuubaa seex abdulaxat mbàkke nag mi mu gisanteel nag kàbbu gay di def nag addiye jum am yit ay magam di yititim nag doomu sëriñ tuubaa seexul xadiim yi addiye ju takkoo takkoo takku nag la yit sëriñ tuubaa seex abdulaxat mbàkke addiye ju takkoo takkoo takku itim nag la yititim nag sëriñ tuubaa seex Abdou Khader Mbacke ba ci addiya yooyu mu daa yit Serigne Touba Cheikh Abdoul Khader Mbacke Serigne Abdou Khader Mbacke nag bindoon na ko ab lettre di ko xamal ne nag addiya yi nga may jox nag jot naa ci ginnaaw bu Serigne Mbacke Sidi nag joxe ay addiya Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke jaarale woon ko nag ci ku ñuy wax nag Serigne Mouhamadou Mbaye Serigne Abdou Khader Mbacke nag ginnaaw bu mu jotee nag ci addiya ya daa bindaatoon lettre nag Serigne Mbacke Sidi di ko xamal ne addiya yi nga ma joxoon nag jot naa ci da jaarale woon ko nag ci Serigne Mouhamadou Mbaye maa ngi lay sant te di la gërëm te Cheikh Abdou Khadir Mbacke bindoon ci addiye yoo xam ne nag sëriñ Mbacke Sidi nag moo ko ko joxoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu amma baadu maa ngi lay nuyu yow sëriñ Mbacke Sidi Diouf bu baax ta di la sant ak gërëm ta di la ñaanal te di la xamal ni addiye ji nga joxoon Mouhamadou Mbaye jottali na ma ko wax na ma itam la nga ca waxoon lépp ci ay pëstef jërëjëf jërëjëf aslahallahu axwaalana wa axwaalakum fi daareni wa ajaarana wa ajaarakum المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبحرمة الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه وسلم بيد عبد الخادر المكي بتوبة المحروسة عفى الله عنه آمين ba tey ci kóllëre gi mu amoon nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci 1968 bi sëriñ Fallou nag sàkkoo ci sëriñ Abdou Lahad nag mu wëraat mbooleem taal yi nga xam ne nag sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag moo leen taaloon bi sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké nag ñëwee Daaru Salaam Juufa ba nag sëriñ Daaru Say Nëbu daa nag ci daaray sëriñ Mbacke Sidi Diouf di ko xamal ne nag yaa ngi jàngale alxuraan nag ba léegi sëriñ Mbacke Sidi nag di ko xamal ne nak ci laa nekk mu di ko xamal ne nag na ci sax nag te góorgóorlu ci nit ki nag amul nag lu dul alxuraanul karima lii nag day dëggal ne nag ñoom ñaar seen diggante diggante la nag bu soree sori moom sëriñ Mbacke Sidi juuf nag bari na nag ay turandoo ci tundu soowu jant woowu ay turandoom nag tur yu takkoo takkoo takku nag te wuute nag li leen di wooyee am na ñu ciy wooyee nag Sidi am na ñu ciy nag Baye Sidi am na ciy wooyee nag sëñ Mbacke turandoo Cheikhul Omar Diouf Diatty mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci dëkk bii nag di Tiwaawoon ci bisub gaaw ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weer wi nag di diggu tabaski ci atum nag ci gàddaay gi gaaw ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru diggu tabaski ci atum 1396 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy samedi 20 novembre 1976 novembre 1976 ci kër nag taalibe baayam bu ñu doon wax nag sëriñ Góora Wali Njaay ci dëkk boobu nag di Tiwaawoon ñu yëgal ko nag ki toogoon toogaayu waajuram di sëriñ sëriñ daaru bu Diouf sëriñ daaru na bu juuf nag moo sàkku ñu jële rakkam jiiti waawoon indi ko nag ci dëkk bii nag waajuram nekk di daaru Diouf ñu jébbal ko boroomam nag ca dimanche ji sëriñ daaru Seynabou Diouf itam nag di xalifa waajuram moo ko jullee ñu denc ko nag ci wetu waajuram wa sëriñ Mor Diouf jati magam nag sëriñ daaru na bu Diouf dafa laaj nag aw këyit taarixal nag rakkam sëriñ Mbàkke Siidi mu wax ne nag bisub gaaw nag la fi bàyyi ko ñaar fukki fan ak juróom ñett weer wi nag di diggu Tabaski Tiwaawoon nag la ko defee nag ci wetu wetu waajuram sëriñ moor juuf jati mbooloo mii tim nag ñoo ko fekke mu tudd nag seeni tur ñu teewlu nag li ci magam sëriñ daaru bu juuf nag wax bisib keroog nag bi ñu dencee rakkam ji nag ba noppi ci kàllaamay araab nag la ko def tuufiya sëriñ mbàkke juuf laylatal ahadi saamini wal asrina min silqaxda sanata wadd sasin hijriyatin li nabii sallallahu alayhi wa sallam fi xariyati tiwaawan fi xuduuri basiru sàll xilluhu wa xibbuhu wa amartukum bi an yuusila fi xariyati abahul muassam bi an yulaasimu fi kulli xaal afaalin zahiratin wa batina wa xasalahu sëriñ malik cuun wa basiru sàll wa muudu njaay anta diop wa ibrahima ndooy wa moor busa njaay wa salla alayhi kabiruhu wamnu abihi sëriñ daaru diouf assahir bi sëriñ tuuba diouf wa aammatul muridina wal muridaati wal axawaani wal axawaat kullum minhum sallu alayhi ma amkana wa tayassara bi niyatin xaalisa ataala allahu xaalana wa axaalakum wa li jamihi awlaadina wa awlaadikum turran allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim taslima ginnaaw kàddu yooyu nag ngeen doon dégg te magam sëriñ daaru Seynabou Diouf nag def ko nag ci moom ci bisub keroog nag bi mu làqoo sëriñ Samba Yaasin Ka bokkoon itam nag ci mag ñi toppoon nag ci ginnaaw sëriñ Mor Diouf Jati moom itam nag martial na sëriñ Mbàkke Siidi mii soo delloo nag ci way yim defal sëriñ Mbàkke Siidi mag ñi xamal nag taxawaayu nag sëriñ Mbàkke Siidi nag taxawoon ñàkk nag guñ ko ñàkk sëriñ Mor Diouf Jati yi lu bari daal la ñu sëriñ Samba Yaasin Ka nag di ñu xamal ci way yim defal sëriñ Mbàkke ko ci yàlla laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahul ilahu soo xalamee demuk rasulullahi ak saaba yaak seex bamba duunallaahi xam ni la génne jooja waay fa tuubaa du bàyyi siidi mbàkke sax fa daaru barsaq jël na waaju am teraanga ba teggi woon lépp lu doon yaraanga barsaq jël na waaju am ja xam-xam ku toog fi moom tuuti mu wax la xam-xam barsaq jël na waaju am ja aajo góor ak jigéen ku ñëw mu faj sa aajo barsaq jël na waaju am ja kersa mus la jànni ba wax ko kersa barsax barsax jël na waaju am ja teggin ba teggi lépp lu bon moo tekki barsax jël na waaju am njooy laaya mus la gis boppam ba def yaraa nga xaafis nga xaalim nga yaaram nga ak mbàkke seex nga judduwaale siidi mbàkke moom sëriñ mbàkke siidi ay xalifaam nag nii la tëddee kim faye nag sëriñ moodu awa balla mbàkke ibnu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo ko wuutu ci atum 1976 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal séqal nag turandoo seexul xaddim wi di sëriñ mbàkke siidi juuf sëriñ mbàkke siidi nag am na bis nag bu ñu koy fàttaliku nag ci li ñu tuddee ak màggal doom ji mu fayee nag sëriñ moodu awa bala mbàkke ñu koy wax nag sëriñ moodu imaam ñenn ñi itam nag di ko wax sëriñ moodu nogay juuf ci atum 1995 la taxawal nag waajuram wi nag bisug màggal bis bi itam nag ci weer yu waajuram génn àdduna itam nag ci la koy màggal jàppul nag ñaar fukki fan yaag juróom ñett day jàpp rek benn alximis nag ci weeru diggu tëbaski woowu di ko ca màggal jor na alxuraanul karim la te ñi koy wuy si itam ñu ci bare bare bari dañuy jàngale te alxamis nag bis la boo xam ne nii nag jàngalekatu alxuraan yi nag dañ koy bër mu jàpp nag benn alxamis nag ci weeru diggu tabaski di ca fàttaliku nag waajuróom moom ci dëkk boobu nag di daaru salaam juufa ñuy ñaan ci turandoow cheikhul xadim wi sëriñ mbàkke siidi yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay waajuram sëriñ moor juuf jat yi amin